jël gaay yi ñu jël gaayam yi Philippe nee na ñu jël gaay réception bi nga xamante ne moom lañ nekk nii film du a ngi noonu euh, ak ak ay xaritam ñëw dugg fi nga xamante ne mooy réception bi King Fahd Palace film Ndour euh, dañ ko jox ay ay kii pour invitation pour xaritam yi mais dégg nañ ci kàddoom bi wax ne ñeent lañ ko jox te huit personnes lañu gis nga ko noonu Philippe dañ ko téye pour l'instant ak ay xaritam dañ ko téye quatre invitations la yor ah, gis ngeen ko noonu quatre invitations yi huit personnes la si war a dugg ñu Merci protocole. Serigne Salim Mbacke Faty Diakhaté ngay waaji moom ngay wàlle bul tiit bul ragal bul raf ki la samp kuy mës a taxaw moo ko samp Serigne Salim ngay waaji moom ngay wàlle moo la tuddee soxna Jaara Buso sa bés bii xamal nga ni sa doom sama waa ji dee leen insisté ci moom. liw bi liw bi ngelaw li sama waa ji. maa ngi papa papa ci ayca ayca ayca lañ ci jël. yéen dama ne kudd yëpp kudd la waaye kenn kudd ñu def niis yow ñu yàgg niis. Thank you. Welcome. Hello. Thank you for coming. Hello. Are we? You are here. Okay. Thank you. Okay. Thank you. Thank you. C'est qui Je le eh cousin naka war yaa ngi doxal mais respect. ñëw na. ah frère. Il est là, il est là, le golden boy de la musique sénégalaise Wally Ballago Seck, mon gars sûr. N'oubliez pas ce samedi, demain dimanche sur la route des Almadies. Laay moo fay seen dëkk. mais dogo. xanaa mën naa la waay. waa jaa ngi kenn du ma. monsieur bi gëm naa kenn du yow kala defal la jàmm and rek da ci pat Youssou Youssou spécial samedi dimanche sur la route des Almadies Vogue oh ça va bien ah. macha allah yaa ngi dox Serigne Babacar. lu xeere. lu wow koŋŋ. daanaka mag lu xeere. oxlan wa soxlan. oxlan wa soxlan. macha lu xeere. Mariasin may sa bige. laa ci jot da lu xeere. kon ko xeere koy toj. ak kii bi sa. the king answer. Metsa forfeté. Lac Diop Déguène Mbaye. Daagu daagu Déguène Mbaye. Ay li ba jàmm la. Ay li ba jàmm la. Lam perel de la musique sénégalaise. Ay fulan bi lan la. Lam perel de la musique sénégalaise. Machallah. Fii la fii la fii la. Ay ay dinañu loolu. Motul ak. Motul ak. Hey! tey tey moom solo da nga sëñ tey moom solo da nga sëñ. naka la. kóol. fan la affaire bi sax. xeer xeer ah. lii xeer la de. jaajëf ah waaw salaamaaleykum. waaye nii daal la. ¿eh? mooy tumbatu la. Eh Bob Zeynep waaw. sant jaajëf grand. kooku Abba. naka la. yaa ngi waaw grand yi macha allah nii rek rek la mën a demee donc dañuy teew. bon mu góorgóorlu rek mu lu xam nga sëy moom la bépp jigéen di ñaan xam nga nekk sa néegu sëy waaw na lu rek incha allah moom wóolu naa ko jàmbaar la. bon ñu ngi leen di waajal ay soirée en live album bi mu ngi ñëw xam nga featuring yi ñu ngi ñëw incha allah ay waaw ay live soirée live yi toj incha allah. waa alma almadi almadi COP 21 duñ bàyyi fenn incha allah waaw léegi ñu euh, communication bi jóg xam nga dinañ gis dinañ xam bu neexee yàlla waaw ñoo ko bokk merci beaucoup merci waay ah, yaa sañse waay yow xale yi bëgg nag nga nekk artiste boo xam ne nii ah, ba neexul mais. wax dëgg fa yàlla ndax tey da ngay ñëw presse ou pas mais Dieyla nuroo nañ nag de est-ce que du ma la gunge <laughs> non maa ngi si yéen ñëpp dégg naa bés bi bés sa loxo yàlla Look at that. ngeen ñëpp merci beaucoup. waaw waaw. ku ci tëtu mbay de yàlla dëgg yàlla damay nekkal moom ci oto bi une heure de temps damay jékki-jékki tur ne ko mais yow mooy xanaa doo waxtaan xam nga vraiment xale bi yaru na yàlla ko caf caf kii may remercier aussi sama famille c'est important ñëpp à travers Ndeye Seydou bi nga xam ne moom mooy suñu taawu kër donc bu fi nekkee rek ñëpp nekk nañu encore une fois encore une fois ma leen koy ñaax jaamu yàlla du julli ak woor. ak dara jaamu yàlla mooy fekk lu loo xam ni rafetul nga rafetal ko loolu moo am solo ñaan leen yàlla ñëpp di nekk si jàmm ku waay fekk loo xam ne rafetul nga la fexeel nga rafetal ko parce que nga am ci yàlla donc vraiment je pense parce que man aussi vraiment dama doon produire musique rek mujj gi ma nekk si télé bi je partage beaucoup d'émotions ak beaucoup de Sénégalais. yàlla xam na fu ma dem damay gis que ni nit ñi am na fu ma teg te peut am naa ci tuuti mérite donc may remercier aussi sama xarit yi toog fii yëpp ñëpp pour lim juum damay jël euh, muy sama mag mu nekk mu nekkoon sax laay wax xarit Youssou parce que léegi nekkul xarit Youssou sama xarit la yàlla def Youssou présenté ma ko bis bi mu ma ko présenté ba léegi dafa mel ni bokk ndey ak baay mu tudd Amadou Samba maa ngi koy gërëm di ko jox bureau bi jox di ko di ko jox ñëpp je tiens aussi à remercier une personne a bëri mais c'est important rek am na benn nit boo xam ne dama koy simplifier ñëpp par rapport ak euh, événement ma koy gërëm kooku ñu ngi tudd Mbacké Diouf Mbacké Diouf bu ñu amee sept ans ba léegi waxuma li may li muy def si man de mais Mbàkke li ngay def si nit ñi Mbàkke ku feebar nga fat Mbàkke ku am soxla nga taxaw si Mbàkke jur la yow yaa nit ki gën a baax ci réew man maa la ko wax ton ami frère tu es une personne exceptionnelle je te remercie mon frère et li ngay def pour nit ñi yàlla la ko yàlla fay vraiment encore une fois wax ji mi ngi bëgg a gudd mais li am solo ba am solo ñun ñi nga xam ne yàlla daf ñu baaxee ba joxe àjjuma ci guddi mun naa wax que ni bu jàkkaarloo commencé ñëppay seetaan yàlla xam ne ni bis bu ma yeewoo dama naan yàlla na ma yàlla xiir may gën a def lu baax parce que àddina amul solo amul benn solo na ngeen cultiver nit ñi nekk ensemble c'est pas que kii ngi doon sëy wala kii dafa xuloo wala kii dafa xeex ku ci def loolu boo tëddee boo sangoo boo tëddee da ngay dañu bàyyi lu lu négatif dañu cultiver lu positif yooyu bis boo dund rek da ngay xam ne am nga mission pour que nit ñëpp nekk si jàmm parce que développement la suñu dëkk ci loolu lay commencé mooy que nit ñi yéenanteel kii Mbaye ma ko tudd parce que su ma ko tuddee rek Youssou bu fi nekkee rek Youssou donc vraiment wax bi bëri na mais occasion bi ma célébrer lu mag lu tool nii dem retraite comme damay dem retraite ah nañ leen jéem a inspiré nit ñi à ce que ñuy def lu baax maa ngi leen di gërëm di leen sant jërëjëf fade away. So I, I'm a big boy, and she